xamante ne bi mooy dëkk mhm. géwél nag bu ñu waxee géwél euh, dafa am ñenn ñoo xam ni fépp la am mhm. da dégg ñenn ñi léegi nekk ci ñàkk jom gu mat sëkk mhm. boo waxee ñu ne la géer gu yàqu laa <laughs> dafa am géwél yu yàqu ah géwél ku diiñ la euh, nit la koo xam ne day yem ci <laughs> géeram ah. di liggéey di xëy di wàcc yor ak njabootam waaye ki nga xamante ni ki dañuy wax ne kii kat géwélu diw la kooku dong mooy xam ak ngéwélam dëgg la waaye léegi dañoo bëgg a créer ay géwél yoo xam ne bii mm. euh, maanaam géwélu ñëpp lañ bëgg a doon maanaam géwél universel nga xamante ni mm. bii léegi ku ñu gis rek nga yor dara ñu doon sab géwél <laughs> loolu nag ñàkk jom la mm. waaw parce que ñàkk jom baaxul xam nga boo wekkee sa sa sa dund mm-hmm. ci ñaan ñu lay may danga war a dem liggéey parce que warta toog ba tey muy wax naan man damay liggéey am naa nàngam ba ma amee lii amul lii am million nee na amu ko soxla wut a mhm. li ngay jëf ci pénc mi rek la nit ñi di xool mhm. xool ndax yow euh, ku diiñ nga wala du du wala du koo diiñ doo ku diiñ mhm. euh, fi ñu yëf yi dëgmal dafa tiital ñenn ñu bari ñoo xamante ni bii dañu taamu facilité di ci dund defe ni nag ñu am jom lañ léeg-léeg sax ñuy wax naan xale yi nañu góorlu te ñoom ci li ñu ne <laughs> lañ xamut lu mu Euh, ñoo xamante ni bi saa yoo xëyee yaa ngi wër ku am ngir mu am lu mu la jox ak koy tuddee lam làmb buñ ko wekkee ci ku ñuy tuddee drapeau kon sport boobu dañ ko war a éliminer. Mhm. parce que warta nekk loolu quoi. Mhm. dafa war a am ay amateurs nekk ñoo xam ne dañu bëgg làmb di dem di seetaani làmb mhm. ñu koy tëgg. billets yi ñuy jaay mën di fay mbër yi. mais ñoom ñi ñoo gën a nekk ci lu neex ci mbër yi. ah bon ah dañuy sol seen yére yu rafet ñëw toog. di riitambale ba ngoon jot di tudd ay tur ñu leen may xaalis diw fële ah sama géer gu baax nga def nii def ni fekk booy bii bëri ñu koy dóor ay kurpañ ñu ngi ko fay cent mille francs léeg-léeg sax pour mu jot ca problème la mhm. ba noppi ñu naan làmba ngi dox non non làmb doxut làmb bu doxoon yëf yi du demee nii mu demee système bi ni mu demee nii cinq personnes rek di dund ci làmb mhm. ñu naan làmba ngi dox ñu leen te millions yi ngay dégg yëpp rombu ñu dix si ñoom ñooy fayeeku millions yi loolu fan la doxee matu ko sax ñaata licencié la ñoom mës nga leen a dégg ñu kaas lool déedéet donc ñoom lii ñu nekk naan mi ngi dox baaxut donc dafa dañoo war a soppiwaat yëfin bi defee ko neneen noo xam ne mbër yi dinañ ci gis seen bopp mhm. bu baax a baax mbër yaa ngi nii chaque jour ñu dagg leen mhm. fan la xaalis bi dugg ñii tey lijjanti nañ loolu ñoom la seeni mbir di dox ci mbir moo xamante ni bii dañ ko teg muy arnaque boo xam ne kenn xamul ban façon kii la ñu bëgg nag lii bu mu soppeeku mhm. Ousmane Sonko amut géwel moo tax lii ak lii ak lii. donc xam nga yooyu mooy waxi daanu ci sareet. Mhm. moom ci jëm boppam. Mhm. bu bokkoon ak xalaat Ousmane Sonko sax nit ñi ba Ousmane sonk ah waaw parce que xalaat yi moom la nit ñi bañ. Mhm. moom dafa war a ranger wu xam ni ñu ëpp ci askan wi léegi buggatuñu lii. ni yëf yi di doxee lañ bëggut dañu bëgg ñu changer ngir sénégalais yi gis seen bopp ci réew mi. pas man ma gis sama bopp ci réew mi mais sénégalais yi. Mhm. majorité des sénégalais vraiment mais xam nga problème bi muy wax ni maanaam mhm. toog ba ci yàgg rek yow euh, maanaam gis-gis yu romb sa jëmm loolu moo bon léegi li mu wax ci wàllu violence bi ba ni tee leen seeni doom man damaa téye samay doom mhm. alaaji làmb yu lu ko ëpp violence ci àdduna amul ah, te mosuma dégg saalaat ñu dem stade stade ba toj ñu rey ay nit wala ñu xaañ ay nit saala ni téye leen seeni doom musuma ko dégg ci àddina loo xam nga te lamb la am ci violence amul fenn ah, ah, xam nga xam nga li nga def nii c'est très important macha allah mhm. euh, bunt bi nga ubbi nii mhm. moo lay won ne la mhm. fekk nit ñaa ngi faatu mais sama affaire a ngi baax amul problème moom moom moom foofu la dugalaat boppam lamb ay nit a ngi faatu waaw <laughs> a mais duñ ne dañ arrêté lamb yi doo ko dégg de maanaam day kaas pour lamb di am te lamb ji chaque jour xeex di fa am ak violence bu saf sap di fa am. agression di fa am am na ñoo xamante ni bi bu làmb jeexee musiba la. Mhm. mais violence boobu gisu ko. parce que affaire am a ngi baax. waaw waaw musul wax musul wax ne téye leen seen i doom. ci làmb ji non du ko gis. affaire am a ngi baax parce que su jógee làmb ji am lu mu kii yaa ngi dégg. Mhm. ba may am million diw amu ko diw amu ko loolu amut solo yaa ngi dégg. Mhm. nit ñi euh, du million la ñuy rawantee. si nit ñi rawante wu xam nga fi ñuy nattee nit ñi moo bon. maanaam diw am na alal lekk bon kii na quoi non non. alal mooy la wax dëgg li ñu war a nattee nit ñi. mooy xool nit ñi du ci ak du ci xaalis quoi c'est que con concurrence boobu moo indi yi ngay doon wax sànq encore. Mhm. Euh, xale yi nga xam ne ñu ngi dugg ci gaal yeeg yooyu parce que dafa am loo xamante ni bii tey moom la ñu commencé wane ci biir réew mi maanaam compétition ci wàllu am-am jéemuñu. ñoom ñii bu njëkk ba géwél li mu daan xëcc nit ki ci jikkooku wax ko yaay kan xamal la sa bopp comprendre ngir nga diiñ wan la sax way jur ñaar say papa mooy kan nga jubóole sa kii mooy lan comprendre yooyu moo nekkoon seen kii waaye léegi fu sama affaire baaxee rek